déglul ma wax la fi tey kii tax ma am fi lu rëy njukkal ko war na ma tey bay zaal borom jamono seex saalixooy ki ma may xéewal yu rëy de ci may moo tax ma tàggoog nay bay zaal boroom jamono moo xëy ni cas sama xol li tax na man duma xul ndax bëgg koy li ma fal baay zaal boroom jamono moo tax ma jàpp lu wér ba tax ñu xëy di ma wër moo tax ma tàggoog lor baay zaal boroom jamono seex saala tax ba ma riis bay xëy di sañse lu riis ndax bëgg koy tax a riis baay zaal boroom jamono seex saala tax ba ma féex bay naan di lekk lu neex moo tax samay kër féex baay zaal boroom jamono moo tax ba tey duma xool kaneen di ñeew a ko xul ndax jox na may xéewal baay zaal jamono lii tax ba man mii tey muxtaar ma xëy di ko woy ngir moo ma may may woy bay sal borom jamono seex saal de mooy kii fi may ndimbal de ndaw ñi le tey lii tax ñu topp ko tey bay sal borom jamono nan sant sant gu wér ñun ndaw ñi mooy li nu war sant kii de ñépp la war bay sal borom jamono naa taxaw lu fii saawo yii ma doon fi jéem di ko woy sëriñub seex medun sëy bay sal borom jamono naa taxaw lu fii saawo yii ma doon fi jéem di ko woy sëriñub seex medun sëy bay sal borom jamono Maxtar Taalif